su ma koy laaj lii ma woon kenn du ma gëm lii. ma ne ko lii de su ma ko laajul woon kenn du ma gëm kenn. pont baa ngi nii pont bu mooy mooy ca Sénégal ñëw Amérique direct. Kader le le la ay ñu ngi ci kër Mère Ndiaye. waxoon naa leen Mère Ndiaye yaa ngi nii. limon am. ak lan am kaani. ak. Mère Ndiaye limon nga nii. ñoom nag expert la waaye ñu ngi Brooklyn ci Mère Ndiaye. waxoon naa leen ko kenn gëm awatu. waxoon naa leen ko kenn gëm wallaahi. le pont le pont entre le Sénégal et les États-Unis. wallaahi wallaahi ça c'est le Sénégal aux États-Unis. Mère Ndiaye ngi nii. ñu dem ci mango bi. Mère Ndiaye ngi nii. non. Mère Ndiaye amul gel hydroalcoolique yow. Eh, loo yow yi ngay lijjanti yëpp dafa bari. métro bi dafa tilim suñu loxo yi dafa salte. waaw eh, nan lekk li ay africain lañ. africain li ray ah Mère Ndiaye xoolal mango yi. Assane mi jaay mal di ca ca ca West Foire yow moomoo ñu Alassane mi jaay Mad West Foire moomoñu mais ay mango mbeer Ndiaye xool leen kaa nit salaamaaleykum def Amérique hi how are you everybody hi <laughs> ah eh eh mbeer Ndiaye yow Uai, Armênia! Uai, Armênia! Uai! Đây em men dây mì sập lên đấy. Em lo hỏi với chị được. Ôi. Anh sẽ không thu được. Anh ấy đã không thu jëlaatal fi yow am jëlal fi yow mango bi ak mango mère Fatoumata bi nekk Pikine bu gën a saf mango mère Ndiaye bi moo gën a saf de wax dëgg fa ne yàlla bi saf nekk ma xel mënu ma ko wax <laughs> ma ñaar dafa lingom mango bi dafa lingom dafa ko lingom ay waay nekk sama xel mënu ma ko wax di waxal waxal ki <laughs> may xalaat baaxul ki may xalaat baaxul tàqal leen mi ibaadu yee ñu dem foofu ngeen ne wax de fan fii ne ci kaw ah seen eh, sëriñ bi dee na yaa ku wax loolu du yow yaa ne sëñ sëñ bi fii fii la atterri avion bi un pilote qui a ah un pilote yow nga ni un marabout ok nga accueillir un marabout y a un marabout. te mooy lamb man lamb sa bagage. jàppale ñu ñu ko daw. voilà vous allez bien. on est en live on est en live uh, you you you don't speak French. you speak English English. Uh, we are uh, live in uh, my uh, Instagram. okay. hi say hi for hi, my. hi hi what's your name? Huh? Aisha. I'm I'm from Pakistan. Oh yeah, like me. You're not from Pakistan. You're Not from Pakistan. Hey, hey, hey. Let me lie. Let me lie. Let, me lie. Oh, what's up? Yeah, yeah. You're from Pakistan. Thank you. <laughs> You live here? Uh, no, I'm here for exchange. Yeah, you have a Mari? You have a Mari? Yes. You have a Mari? Yeah. Hola. Oui, ma. Mari. Yeah. No, Mari. Kijk jullie, mijn bij Lokko. You have a Mari? It I'm her husband. No, I'm, I'm saying. I'm here. I'm She's here. single. You have I'm, to say, are you married? I'm yeah. Here. Sometimes Sunday I'm here. Sometimes Sunday I'm here. I'm here. Okay. I'm here. I'm here. And I'm very uh, disponible. Available. Manu, Manu, will you please help me? Okay. I need to just get down. Aji, aji. Mu ne mu ne pour yaayam pour mu oh. may ko Thank you. Hmm? Nee na na ko yaayam may loxo mu are ah? you? good. What? No, no, no. Take